الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokki jullit ñi di ñu topp fu ngeen man di nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ginnaaw bi ñu santee suñu boroom di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> di ko ñaan moom suñu boroom mu nangul ñu suñu koor te jéggal ñu suñuy bàkkaar ba léegi ñuy ànd ak yéen ci suñu dars allamani ramadan muy ramadan jàngal na ma tey war doon suñu tomb fukkeel ramadan jàngal na ma ramadaan di weeru koor xamal na ma ne an taacata sahlatun yasiratun walakin ala man yasaraha allah alayh wa hiya taxtaaju minna ila sabrin wa mujahada weeru koor xamal na ma ne topp yàlla day lu jàppandi la waaye lu yomb la waaye ci kan la yomb mooy ci ki ko yàlla tabaraka wa taala yombal kon nga déggee ci ne bu ko yàlla yombalul ci doomu aadama bi rekk topp yàlla googu day diis ci moom topp yàlla googu nag taxtaaju minna ila sabrin wa mujahadatin dafay aajowoo ci ñun bu ñu koy def ñu boole koog muñ ñu boole koog jihaat suñu bakkan góor-góorlu ba mën jooxe topp yàlla googu moo tax suñu boroom tabaraka wa taala daldi ne walladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana ñi nga xam ne dañuy góor-góorlu di def effort jëm ci suñun yàlla def suñuy ndigal bàyyi suñuy tere yàlla nee na ñooñu dey la nahdiyannahum subulana dinaa leen jubal teg leen ci suñu yoon yi wala teg leen ci suma yoon wu jub bi suñu boroom tabaraka wa taala waxaat ba tey itam ne wala inna alladina aamanu wa amilu saalihaat ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla boole koog di jëf-jëf yu baax yahdihim rabbuhum bi imaanihim sen borom dina leen jubal orienté leen waaye ci sababug seen gëm yàlla gi ñu gëmoon tajri min taxtihim al anhaaru fi jannati naim ñu dugal leen ci àjjana yoo xam ne moo ngay daw ci suuf ay dex yahdihim rabb dacwaahum fiha subhanaka allahumma wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru dacwaahum an alhamdulilahi rabbil alamin kon weeru koor jàngal ne ne topp yàlla googu lu yomb la waaye ci ki ko yàlla yombal léeg-léeg jullit bi am jaamu yàlla yu yomb nga gis yaram bi tayal ci bakkan bi tayal ci ruux gi tayal ci dafa fekk ne yàlla yombalu ko ko nga gis jullit boo xamante ni munta woor koolu ngàtt nga munta woor jeudi munta woor mun ta woor ñetti fan ci weer wu nekk muy la treize quatorze quinze fan yi sunna yi nga xamante ni woor ko dafa baax lu mel ni fukki fan ci weeru tabaski nga woor juróom-ñeenti fan yi lu mel ni woor ci weeru tamxarit lu mel ni woor ci weeru shaxbaan muy weeru baraxlu wooru sunna yooyee nga xamante ni lu yomb la danga gis ñoo xamante ni mënuñ ko ndax te day suñu borom tabaraka wa moom moo leen ko nga gis ñoo xamante ni julli yombul ci ñoom dafa diis ci ñoom gann ba mën nañoo dem ba bàyyi julli complètement ngir diis bu julli diis ci ñoom ñooñee dafa fekk ne topp yàlla googu yàlla yombalu ko ci ñoom moo tax jullit bi fu mu toll war na ñaan yàlla di ko yombalal mu di ko jaamu di ko yombalal mu di rafetal jaamu gi moo tax mu bokk ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ainni ala dikrika wa shukrika wa xusni ibadatika muy ñaan koo xam ne jullit bi war na koo mokkal allahumma yow yàlla ainni yàlla nag ma dimbale ala dikrika ci ma di la tudd fu ma toll wa dikrika ala dikrika wa shukrika waaye ma di la sant fu ma toll waaye wa xusni dimbale ma ma lay ma lay jaamu jaamu bu rafet fu ma toll yow yàlla kon kookee ñaan googee yenent bi daan ko ñaan ngir suñu boroom di ko dimbale ñu mën koo joxeel ay jaamu yàllam kon yow jullit bi am xel del ñaan ñaan googu ngir yàlla di la jàppandal di la yombalal topp yàlla yi waaye topp yàlla yooyu nag bu ko yàlla yombalee ci jaam bi ba wërsëgal ko loolu dafay aajowoo bu ñu koy def ñu boole koog muñ dafay aajowoo bu ñu koy def ñu jihaad ak suñu bakkan ndax xoolal weeru koor xëy ca fajar ba jant bi sox doo lekk doo naan doo jotee ak sa soxna boo néewee bu sa bu sa kàttan bu sa bu sa bànneex yenn gaaw yi sax ñu ne la bul jonjoo ak sa soxna nga xool topp yàlla googee dafa laaj muñ dafa laaj jihaad ak bakkan bi waaye itam nga xool julli rawatina julli guddi léeg-léeg mu tombeek jamonoy sedd nga war a jug ci fajar gi jàpp bu laajee sangu nga dem sangu ji bu laajee xuus ci lëndëm gi génn dem ca jàkka ja nga def ko loolu xam ngeen ne dafa laaj muñ loolu dafa laaj jihaad ak bakkan bi nga xool jamono bi ngay jug war a jug guddi julli sa boroom tabaraka wa taala moo xam xiyaamul layli la moo xam julli gi noo ko mën ci tuddee fi nelaw yi di gën a neexee fi mbàjj mi di gën a neexee ngay jug bàyyi fa lal yi bàyyi fa mbàjj ga bàyyi fa soxna ya jug jullil sa boroom tabaraka wa taala laa sakka loolu dafa laaj muñ dafa laaj jihaat ak bakkan moo tax jullikati guddi yi yàlla ak leen di tagg ne tatajaafa junubuhum anil madaaji ñoom day bu guddi jotaan dañuy yi bàyyi fa lal yi bàyyi fa nelaw yu neex ya bàyyi fa ngegenaay ya bàyyi fa soxna ya bàyyi fa mbàjj ya yadcuuna rabbahum xawfan wa tamaa di julli di ñaan seen boroom ci ragal ak ci xemmem àjjana ja nekk ca copp seen boroom tabaraka wa taala noonee nga koy toppee ba jaamu yàlla yi jeex nga ñëw ci jaamu yàlla alal nga xool alal ni mu saxee ci xol yàlla ne li ma la sédd génn ci jox ci miskin yi azaka jox ci fuqaraa yi azaka saraxa ci def ci lu baax alal jooju laa shakk ne boo koy génne ak ni mu neexee ci xol ni mu neexee ci bakkan dafay laaj muñ dafay laaj jihaad ak bakkan bi kon bépp jaamu yàlla boo xamante ni ñoo ngi koy def nañu ci góor góorlu bu baax fexetee am fayuk suñu boroom tabaraka wa taala te loolu nag li ñu koy may mooy ñu muñ waaye ñu def li nga xamante ni moom mooy jihaad ak suñu bakkan <clears throat> looloo tax weeru koor ñetti xeetu muñ yi dajee dajee muy muñ ba topp yàlla ci koor gii mu la sant ne la def ko min tuluuxi alfajri ila gurubi shamsi waaye muñ ba bàyyi tere yi la yàlla tere te mooy lekk ak naan ak sëy ak ya ca aju waaye muñ ba muñ dogalu yàlla te mooy yàlla moo farataal ci yow koor gi moo tax ñi nga xamante ni dañuy muñ ci xeet ñetti xeeti muñ yooyu yàlla da leen di fay fay gu amul regle innama yuwaffa saabiruun ajrahum bi xayri xisaab yàlla nee na dana fay muñkat yi seen fay ci lu dul benn regle moo tax itam koor ba mu dajalee ñetti xeetu muñ yooyu la yàlla ne jëfu doomu aadama bi yépp day moom la ñeel illa siyaam ba mu des koor fa innahu lii wa ana ajzi bi mu ne koor man yàlla maa ko moom te maa koy fayal sama bopp ndax doomu aadama bi bàyyi na lekkam bàyyi naanam ngir man yàlla bàyyi ay bànneexam kon man yàlla man maa koy fayal li nga xamante ni moom mooy sama bopp kon bokk jullit ñi weeru koor jàngal nañu weeru koor xamal nañu ne jaamu yàlla day lu yomb la topp yàlla lu yomb la lu jàppandi la waaye ci kan ci ki ko yàlla yombalal yàlla ñu suñu borom tabaraka wa taala boole ca ñamu yombalal jaamu yàlla googee waaye boole ñu ca ña nga xamante ni dañu koy booleek muñ dañu koy booleek not seen bakkan hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain بالخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيام